emploi maître loo ñu jàngatal ci loolu. waaw euh, je vous euh, ci invitation bi di nuyu kilifa yi ma fi dajal madame l'honorable député mhm. ak suñu sœur ak camarade de combat maanaam euh, Maïmouna Bousso ak le grand analyste. ah merci que le pays a hâte d'écouter. amiin nest nuyu téléspectateurs yi. bu loolu weesoo ku ci nekk daal wax na fi ay wax yu am solo ku ci nekk am na foo xamante ne ànd nag yi li nga wax xam nga constitution moom mooy séddale les pouvoirs ci réew mooy wax ku nekk lan mooy sa cër ba muy wax ci président de la république di wax ay cëram ay pouvoiram ci la wax à l'article 69 par sous le contrôle de l'honorable moo ni président de la république am na sañ-sañ décrété jël par décret état d'urgence ba état de siège bu ko defee douze jours la lay durer jeex maintenant nag bu ñu koy il faut une loi léegi constitution bi nag waxul dans quelles condition la jële jëlee état d'urgence lan mooy am ñu jël état d'urgence wala état de siège. association flou non constitution du wax des détails. laissé à l'appréciation du président. le la constitution pose les principes les de base léegi nag loi 69 29 du 29 avril boobu muy wax noonu moom mooy wax kañ la ñu mën a def état d'urgence kañ la ñu mën a def état de siège yooyu bu amee alors les administration bi ak police beeg ñaangam seen ak ku nekk lan mooy sa pouvoir nu mu yokkoo. ak sañ-sañ yi ñu am alors comme ni mu ko waxee nag loi vingt 29 bi comme son nom l'indique c'est une loi 69 du 29 avril 69. ba xam nga 69 ak 2020 tam yàgg na donc lu ñu jëloon en 69 vraiment war nañ ko mën defaraat. kon yow d'accord nga ne fi mu toll nii loi bi war nañ ko mën a modifier. non attends j'arrive je ah, fais ma démonstration. ah ok ok. j'ai dit je comprends ku ñu war ko mën a maanaam xoolaat. da koy adapté dafa yàgg. ci fànn boobu d'accord na ak li wax nii. mais moi mon problème. Mm. c'est que état d'urgence bi loi soixante vingt-neuf bi teg. c'est ce qu'on appelle d'urgence de droit commun. boobu lan moo ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy xeex le troubles politiques les menées subversives l'atteinte à la sécurité intérieure donc presque dafa mel ne politique wala catastrophe naturelle ak yooyu moo tax mu jóg par tey jii nii bu amoon fi benn mar d'Italie un tremblement de wala ay volcan wala ay xam nga affaire yooyu mais ici mënul dugg boobu. duggul si foofu. yàlla moo calamité. non j'arrive la calamité c'est quoi calamité ça peut être calamité calamité c'est un malheur mais dans le cadrage bi ñuy tëgg loi bi tëggeewuñ ko pour ay feebar. dégg loolu moo taxoon ay feebar taxuloon ñu di koy def comprendre léegi nag d'accord naa que gouverner c'est prévoir. gouvernement état dafa war a jox ay boppam ay moyens ni mu defee fas situation bu war a ñëw te ñëwagul kooku jàppal nañ ko dégg mais man jàpp naa ni la loi 69 29 nekkul le cadre légal adapté ba nga xamante ne moom la état war a jaar pour def état d'urgence sanitaire. kon la war a jaar. parce que état d'urgence bi ñu def c'est l'état d'urgence sanitaire pour xeex pandémie prévenir. son expansion endigué ko bële nag pour xeex ay trouble politique la ay catastrophe naturelle ay troubles sociaux maanaam police ak sous-préfet préfet yi ñoo ci ëpp doole administration lii feebar la ñuy xeex kuy wax xeex feebar docteur ak ñàngam seen ñoo ci war a ëpp doole service d'hygiène ak yooyu ci li ma yaakaar man dégg nga loolu moo tax ma ni man jàpp naa ni la loi sànn neuf vingt-neuf bi moo tax d'ailleurs je crois que madame le l'honorable a dit que am na benn kii bu ñu ci yokk xam nga jokk ci benn dispositif pour feebar yeeg yooyu ce qui montre que amu ci woon donc man li ma jàpp man le cadre légal adéquat pour def état d'urgence sanitaire pour moi le code de l'hygiène publique mais mën naa laaj benn affaire. waaw parce que man. parce que yaay loi dégg ci ay rumandaat. porte à côte des at bi commencé dañuy bugg dem vers euh, ni ñu koy waxatee tiwaay état d' urgence sanitaire nationale pour une durée de deux mois mais dama bugg a xam ci biir état d' urgence est ce que bu fekkee dem na ba loolu yëpp taxaw est ce que maanaam gouvernement bi wala nguur gi dina am sañ-sañ wax population bi da ngay vacciné wu par exemple par la force wala déet. xam nga am na ñu wax ni par exemple comme en France am na ñu ragal nii euh, mën nañ jël ay mesures. boo xamante ne fekk indirectement dafa jëm ci forcer nit ñi pour ñu vacciner parce que mën nañu ne par exemple kooku en France la pas ici dégg naa ñu koy wax foofu noonu ko ak ñu koy wax nee nañu mën nañu jël par exemple ni eh, gox sàngam bala nga fay dem foog nga yor test boo xamante ne par exemple soixante douze heures avant léegi déjà commencé na par exemple pour l'Angleterre où il y une nouvelle chose bu feeñ nee nañu ku fay jógee di ñëw foog nga yor test boo xamante ne <laughs> soixante douze heures au moins mais gars yi neen nañu mën nañ dem ba nii par exemple gox sàngam wala activité sàngam bal nga koy def na fekk nga vacciné wu donc indirectement day mel ne dañuy pousser à la vaccination obligatoire. vers le visa sanitaire. xam xam xam nga buñ la ne par exemple yow. musicien nga par exemple pour prendre leur exemple. ah jërëjëf boo bëggee tëgg daal saa waay. ah <laughs> na tombé nga am nga am vaccin. tu es obligé sinon doo tëgg. c'est compliqué am nga assommant tu es obligé de te vacciner. Eh. <laughs> wala buñ la waxee. <laughs> yow par exemple voyage sa nga yor agence de voyage wala leneen. foog nga bala ngay recevoir nit ñi wala leneen wala restaurant foog nga vacciné wu nooy def donc mais ça c'est pas encore le cas du Sénégal pour vraiment mettre à l'aise euh, l'honorable mais pour me résumer hmm. man jàpp naa ni loi soixante-neuf c'est pas le cadre légal adéquat pour def état d'urgence sanitaire d'accord état d'urgence sanitaire pour man code de lis l'hygiène moom la euh, peut-être gën a basé wu puiser ci yokk doole médecin yi yokk doole service d'hygiène yokk doole ministère de la santé d'accord xam nga même en France état d'urgence bi am yokkul doole Macron parce foofu c'est le premier ministre c'est le chef du gouvernement moom mooy jël les mesures réglementaires ña li topp ci les ministres ak yooyu mais ici on n'a pas de premier ministre donc il y a une loi d'habilitation bu yokk euh, les pouvoirs du président comme ni ñu ko defee woon la dernière fois mais à mon avis à mon avis et expérience bi wane na ko on a vu beaucoup d'abus par exemple de répression des forces de l'ordre ay nit ñuy dóor ay nit nangam nangam ak yooyu alors que c'était pas ça l'objectif l'objectif mooy xeex feebar mu bañ a law bien sûr kooku nag du alkaati moo koy xeex du fetal moo koy xeex docteur moo koy xeex information moo koy xeex donc xam nga Cheikh ban euh, Covid bi Covid bi c'est un c'est un prétexte pour tout Covid bi